mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm. jërëjëf Serigne Moustapha moom Serigne Abdou Lakram Mbacké kon yaakaar naa mbokk yi yéen a ko déggandoo muy kàddu yu am solo. yo xamante ni xamee nañ ci lu bare bare bare ci dayu bi nga xam ni béréb bii ñu nekk tay muy dékkalé mom la am. niñ ko waxé wonatem euh buñ ñu Serigne mustapha mom Serigne abdou Karam Mbacke ci cadeau yu am solo yi dinañu jébal cadeau gi Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne ali Mbacke. yaakaar naa bépp liggéeyub Serigne Touba bu ñuy defal xaadimu rasul foo gisee Serigne mustapha abdou Karam di nga gisee Serigne Cheikh Aliou foo gisee Serigne Cheikh Aliou di nga gis Serigne mustapha mom Serigne abdou Karam kon ñu bayé cadeau gi ak Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Aliou salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw ba nu sante sunu borom subhanahu nuy julli ci yonent bi salawaatu rabbi alayhi di sant xadimu rasul suñu yaakaar tey ak ëllëg eh, di bég lool ci jataay bi tey eh, ki waral jataay bi eh, ki joxe ndigal ci ñu teew ci jataay bi ak kiñ jox ndigal ci mu teewlu ci jataay bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax euh, di leen xamal ne dénkaane ko wóolu kenn ku ne gis na dégg na sëriñ bi ni mu xamee maitrise li xew fii ak ñu tedd ñi fi tëdd waaw Euh, loolu xas na ko wax duñ ci dellu siwaat ndax ñoo fi bokk mel maam moo xam ne ma sama ndikki rajo mi ngi fi tëdd ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen daa ñu ngi fii rek mooy Sénégal waaw kon euh, sëñ Moustapha mi ñu dénk lii béréb bi ci boppam dafa yellool ku mel ne sëñ Moustapha ñu dénk ko ko ndax li may wax mooy yàgg naa ko wax kuy dunde aw ñaqam la ni mu ko waxee léegi ñu dégg ko mooy du mën a woote daani ki yelwaanul salxuwul euh, alali boppam ñaq boppam la ciy def te noonu la masa def ci lépp lu mas a def ñaq boppam la ciy def loo ko fa fekk jox ko loola mu dugal ko fa yaakaar ne bu sëñ Tuubaa ñëwoon dana ci bég loolu mooy doxalinam ku mel noonu nag yomb naa jëflanteel lool ndax léppam da koo jox xaadimu rasul léppam da koo jox njabootu Maam Mor Anta Sali léppam da koo jox euh, réew mi ndax sëñ Muntaxa ànd nañu mu jox ko ne ko silatu rahim bi yow laa ko dénk waaw yow laa ko dénk moom mii xam naa da ko dul bëgg di wax waxtu wu ne waaye man sañ naa ko wax ndax témoin laa ci bokkoon daa ne woon am na mu seere loonu ne ak jàppam Serigne Touba yéen laa dénk sama seere googu ngeen seereel ma ko kon sëñ sëñ Moussa Alla Karam wax dëgg yàlla yelloo nañu jox ko lu mel nii béréb bi itam taxawaayam moo di moo woo jamono ndax kenn ku ne waaw am nga fi ab euh, wàll am na fi wàll day koo xam ne rek loo gis ne day am njiit waaye mu nekk njiit lu mat njiit waaye barab bi ci boppam moo wooteloo boppam ku ko ci mën a fekk néew na nga dem ci tegu xeer nga dem ñu ne la lépp a ngi fi waaw loolu wax dëgg yàlla tegu xeer ñi koy def ñu ci bare bari dañuy bay ba nit ñëw ba asluf dajaloo nangam nangam pour woote tegu xeer pour dara dara dara dara booloo waaw ñu seet luñ gungee xeer wa waaye fii xeer bi daa jiitu lépp lu am solo la kon alhamdulilahi rabil alamin euh, na kenn ku ne xam ne ku gëm Serigne Touba ku ne ka nga xam ne moom meññee xaadima rasul tëdd fii foofu euh, ñëpp la ñëpp la war a ñor ñëpp la war a ñor kenn ku ne war nga caa gën a góorgóorlu buñ la ko waxee ak buñ la ko waxul yaa mën a waxtaan ak sa xel ak sa ngeganaay xam ne am na lu la fi war ndax cosaan lii fii la waaw fii la lépp jógee kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant bu baax sëñ euh, Muntaxa Mbàkke mi am xalaat bu rafet boobu dénk ko ku mat a dénk muy sëñ Moussa Lakaram euh, di sant bu baax sëñ Basiru Anta Ñang mi nga xam ne ñëw na fi te xeer wi ak njabootu maamaaram gépp kenn ku ne xam ne euh, mbooloo bu ñu àndee kenn mënut a ñàkk ku jiitu waaye kenn ku ne na jàpp ne moo war a defaral boppam béréb bi waaw ko defee bu ko defee rek dana gën a sontu na kenn ku ne xam ne moo war a ñëwal boppam war koo defaral boppam ci muy devoiram maanaam muy waru garam waaw kon buñ ko defee rek dana dana dana neex gisee mbooloo mi fi teew euh, kenn ku ne xam na ne kiñ ko dénk mën na ko waaw mën na ko bu baax a baax alhamdulilah rabbil alamin ki ko dénk itam suñu borom may na ko euh, euh, may na ko daraja joo xam ne xam na xàmmee na waaw xam na xàmmee na ndax ki ko war a dénk rek la ko jox muy sëñ Mountakha kon nag yàlla na fi yàgg lool te wér kon képp koo xam ne maram maaram Seexul Xadim saf na la ñor na la yaakaar nga naa ne boo gisee ni mu demee ñu war a defaraat fii ñu ne leen lépp dajaloo na fi loolu ci matériel mi ngi fi waaye eh, sas wi aw sas moom du jeex waaw ndax buñ bañee tool bi booy kenn ku ne da ciy dugal sa loxo waaw ko defee barke bi mën a naat fépp ba àgg ci ñëpp ndax ki ñu ko jox kat ñëpp la yéene jàmm waaw kon nag noonu rek lañ ci mën a bokke bu kenn ne bu kenn waaj da ci ñëw ñëpp jàpp man loolu laa xalaat ne yëf yi li sëñ moo di faral di wax lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca te loola moo xew fii ci béréb bi kon nag alhamdulillah ñoo ngi leen di sant bu baax li nga ko waxee léegi itam euh, sëñ Modou Abdou waaw ak euh, ñi fi ñi fi jege ñëpp euh, gën a jege ci presse bi kenn ku ne sëñ Mamour sëñ Mamouram sëñ Moutala ak sëñ Fallou <clears throat> itam noo ngi leen di delloo njukkal ci euh, maanaam taxaw gi ñu taxawul yëfi ñëpp maanaam yëfi ñëpp waaye ñu def ko seen yëf maanaam mooy li ma doon wax léegi kenn ku ne da ko war def sa yëfi bopp kon noo ngi sëñ Fallou sëñ Moutala ñu ngi koy sant bu baax a baax moom itam ak sëñ Mamour ci béréb bi ñu saytu nga xam ne wax dëgg yàlla féete fi la cay des nag nga xam ne man bi may ñëw nekk na ci sama xel wax dëgg yàlla mooy dëkk bu mel nii ak dëkk bu mel ne Thiéyène nga xam ne ay histoire histoire la bu waxuma sax ci Sénégal mais histoire la ci Afrique occidentale par rapport ak colonialisme bi nga xam ne héros li ñuy wax héros national waaw muy Cheikhul Khadim loolu béréb yooyu bañ ko war a def dañ ko waroon defar bu yàgg maanaam fii lu mel ne Goudron ñëw ba fii fu mel ne Thiéyène itam lu mel noonu dem fa ndax ginnaaw ay mbooloo fay dem ah, te mbooloo mi ñooy réew mi wax dëgg yàlla te héros kenn ku ne si réew yaa ngay sàmm say héros yu réew yaakaar naa ne loolu itam noo ngi ñaan autorité compétente yi ñoom itam ñu xalaat ci loolu ba dëkk béréb yu mel nii ñu fexe ba accès bi gën a mën a yomb yaakaar naa ne loolu ñu ngi ci mi ngi seen xalaat ndax euh, réew mi moom ñu ñi fi nekk ñëpp benn lañ ay bokk lañu lu baax lañu bëgg euh, jàmm rek fi xaj ni ko sëñ bi ñaane yàlla na fi yàlla saxal jàmm kon alhamdulilahi rabbil alamin sëñ Moustapha daal bokk yi ñu ngi sant bu baax yaakaar naa ne bu ma waxee ci seen kàddu dana doy kon kon bokk yëpp ñu ngi lay sant dañ ne bu nit baaxee ndax bokk yaa ko wax waaye bokk yi day nee nañu ku baax nga ku gëm sëriñ Tuubaa nga ab julit nga as gor nga wax dëgg yàlla te lii sëñ Muntaxa defit <clears throat> noo ngi ciy bég lool moo di mbir mu ne nga seet ka ko gën a xam nga jox ko ko ndax lii nga nettali ci lii fi tëdd nga xam ne yoroo aw defoo dara yaa ko waxal sa bopp muy suñ maam noo bokk ay maam ñun ñëpp ñooñee law na ci lu baree baree baree bari ci njabootu maam Mor Anta Sali law na ci taalibe yi law na fu ne waaw bay bay Sénégal kon alhamdulilah yàlla na ko àggaleeg jàmm ci daraje Xadim Moustapha euh, lépp antu te yàlla yàggal fii sëñ Muntaxa lool ngeen bokk ànd ndax sa nit la sunu nit la sunu xarit la sunu sunu wayjur la man wayjur la ci man yow itam sa mag la joo xam ne du ngeen tàggoo ba cëg waaw wax dëgg yàlla yaa ngi koy jàppale bu baax yaa ngi ci wetam ba bëccëg loola itam liggéey boobee itam euh, mbokk yëpp a ngi lay sant ci ni nga taxawee ci wetam ci taxawaay bu mat waaw bu mat taxawaay waaw alhamdulilahi rabbil alamin kon nag yal na yàlla xeb dolli guddal seeni fan wéral suñu cër bañ gën koo mën a gën a mën a jaamu yàlla tabaraka wa taala ni ko sëñ Tuubaa digg digale eh, moo di liggéey ak jaamu yàlla tey maandu tey bañ tooñ te ku ñu tooñ ñu jégal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu